góor gi nag bëgg na ko yemale waaye nag soxna sa bañ na xamal na ko ne daal du ma sa genre du ma sa nangam du ma sa nangam ba yëpp yooyu nag mate na sëkk ne góor gi ne kii moom tàmbal na di doxaleeg nu muy doxaleeg moom. dem na ba juróom benn weer yoo xam ne daf ko xañoon moom soxna ci boppam ci góor googu dem na ba du ko tàmbal dootu ko toggalati dootu ko sax gisati sax far nekk nekk borom alal jooju. muy continuer di doxaan ndaw soosu continuer di sëyeeg moom fu kenn yëgul waaye nag ma fat leen mbir ni waxoon naa leen ca njalbeen ba ne su la yàlla mayee alal dafa am lu mu lay xañ su la yàlla nag xañee alal dafa lu mu lay may góor ga nag gannaaw amul alal nag waaye am na nag baat te ñetti ña ñetti tooñ a ngi nii yoo xam ne ku ne ko tooñ boo ñaanee suñ borom du ko gànt tooñu koo xam dafa néew doole lool nga tooñ ko da caa bokk góor gi nag dem na ba woo ndaw si waxtaan ak moom waaye nag kañ la xam ne ndaw si dafay seq ak ki nga xam ne moom mooy borom alal jooju foofu lañ bëgg a dugg nii borom alal ja xëy na bis may ndaw soosu lal bu ko jomb góor gi laaj ko foo jëlee lal bi mu ne ko diwoo ma ko may góor googu nekk moog diw moom ñoo bokkoon benn jàkk bu ñu daan julee ci koñ bi xamante na ne lu jiitoon soos du ñëw ñoo daan bokk benn keppaar ngoon ci jàkk ji la nga xam ne moo nekkoon seen koñ góor ga nekk waxtaan na ko ak kilifay jàkk ja kilifay jàkk nañu góor ga waxtaan ak moom waaye yëf yë foofu la mujj amee ab kéemaan foofu nag lañu xamee ni góor borom alal dafay jëfandikoo soxnay góor googa góor go nag naxar woowu jàpp na ko jàppin bu ñaaw a ñaaw ñaaw jàpp na ko jàppin boo xam ne kenn mënul xam nu mu toll góor go nag ci yooyu jamono la jël ay bagaasam génn war a dem nag delluwaat dëkk gi mu juddoon moom mooy Guinée bi mu fay jógee li tax ñu indi kaa bi mooy bi mu fay jógee dafa am benn kàddu bàyyi woon foofa ca kër ga dafa xamaloon ki nga xam ne moom mooy jaxasoo soxnam fexe ba jël ko ci ay loxoom fexe tamit ba jaar ak moom jaar moom jaarin bu ñaaw góor gon nag ma ngi koy xamal ne ko nii nga ma def ci sama soxna di bànneexu ak moom lu dul nekk muy sama sama soxna tey ngay mujj am bànneex ci jigéen te jii sama soxna si ginnaaw moom ngay mujj am bànneex ci jigéen daal di dem nag Guinée bàyyi fi nag soxna si waa ji am na feneen fu mu ko looseel waa ji nag tàmbali naa dem ci moom booba léegi nag ñoom ñaar amuñu doom li ci gën a yéeme nag mooy góor googu dem na waaye ki doon jaxasoog soxnam góor ga wax na ko baat boobu góor ga ne waajooj nag tàmbali na moom li gën a yéeme ci mbir yi moom tàmbali na ñàkk ànd ak sagom ci xeetum sexualité bu mu war a seq ci mën a doon ndax dem na ba bëggatul ay jabaram du sëy ñoom ñaar ñi dem nañu kenn ma fa des dem na ba kooku du ko jox ayam bu mat sëkk ndax jigéen bee mu jëloon ca góor googa yamatul foofa dem na ba mënta contrôler boppam ndax nag góor ga daf koo liggéey galaaj ndax ñaan ba daa nangu lu mën a am ba mën a am mooy waram alal jooju mujjutul contrôler boppam xàmmeetul jabar ji mu moom xàmmeetul doomu ji mu jur xàmmeetul rakk ji mu jur xàmmeetul kenn bakkanam yépp dal na ko xiirtal ci jigéen gu mën a doon loolee nag yóbbee na ko moom mu dem ba sëyee ki nga xam ne doomam la moom moo ko jur ki topp ca taawam mu jigéen dem na ba am ak moom kooku benn doom sëy nag moom ba am kooku benn doom magu kooko génn na kër ga xale yi jigéen ñi ay doom yi mu jur dem nañ ba xam ne seen baay dafa am feebaru sexuel dafa dem ba kuntulatul boppam antoog sagom day dem ba day bànneexu sax ci ne moom moo wan na loo lor ki nga xam ne moom mooy doomam mu nekk mbir moo xam ni kenn mënu ko wax depuis 2013 ba 2020 comme niñ ko faral di yàgg waxee kaa boo leen gis ñu indi ko fi kenn ci mbokk mi kenn ci famille bi dana am lu mu téye lu yàgg lu ko yéem waaye nag ñaare du gis fu mu ko mën a yóbbee xalaat boobu moo waral nag saa su ne ñu ñuy contacter di ñu jox ay xeetu mbir yoo xam ni dafay am suñu société bi ñu nekk xeet boo xam ni ki am alal day jàpp ne toujours lépp moom yàlloo na ko war na ko mën a am te àdduna du doxe noonu dafa am lu yàlla cëral am yu mu la cëralul su fekkee da nga bëgg topp sa bakken ngi ut lu yàlla cëralulee da ngay dëkk ci rek lu neex naqar suñu borom ki ñàkk tamit na xam ni ni ñàkk jotewul dara ak dignité mën nga ñàkk du tee musi nga am sa dignité ginnaaw loolu nag ni ma ko yàgg waxee rek émission bi du weerante émission bi du uññu sutura du uññu eh, gàcc li ko tax a jóg mooy yee ay génération génération yi bëgg ñëw ci kanam ngir ñu jox suñu contribution ci génération future bi bëgg a ñëw pour kenn ku ne xam ne lii jaaduwul te lii jaadu dañu koo yokk ba ci kanam émission bi nag moom mooy seen émission Ottitooxiduna seen flash point comme lay amee numéro boobu ngeen gis ci bande de bi mooy suñu numéro képp koo xam ne daf ñu yittewoo mën na woo ci jooju la numéro su ko defee mu ñu mën a jox ci xibaar Tooxiduna danañ ko mën a liggéey mën koo yaatal ginnaaw am na suñu jigéen bu baax mi Maman Africa day joxe xalaatam toujours ak commentaire ci video yu ñuy def am na ku ñuy wax Ibrahima mbay dëkk ca parcelle ca ECHO moom tamit day def lu am solo ci suñu liggéey bu baax a baax a baax a baax Mouhamed Diouf nag duñ ko fàtte mukk rakku Cheikhouna Diouf la kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.